al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam salaamaaleykum sëriñ xaban ma jéem a tontu rek ci laaj yooyu nga doon laaj dama bëggoon nag leeral euh, d'abord lan mooy vaccination lan mooy vaccin man la professeur Lamine Guèye Euh, xam nga vaccin pour ma expliquer ko damay jël exemple lu ngas ngas moom daanaka euh, képp ku nekk suñu réew yi xam nga ko xam nga ci cosaan jàpp nañ ne boo xasee ba ngas benn yoon euh, ba mu wér dootu la dal waaye nag képp koo xam ne mosoo ngas boo jegee ku ngas ci xale yi lu ci bari da ngay gis mu daal di koy jël loo tax sax ngas bari woon Euh, bu njëkk ba nga xamee bi ñu nekkee xale ñun ñi euh, kër gi da ngay gis bu fa nga duggee rek wala ab ko ñëpp jël euh, loolu foofu lay déparé pour expliquer leen li tax boo ngasee daanaka giirub dund dootoo ŋas microbe boobu di ni ngas bu la duggee sa yaram daf koy gis càmbar ko xam ni mu bindoo defar ay li ñuy wax anticorps yoo xam ne eh, yaram wi da ko defar bi mu gisee ngas dugg ko mu xeex ak ngas nag ba gañe ko te anticorps yooyu moom la gañee ngas bi anticorps yi nag day daal di des ci yaram wi giiru dund eh, loolu bu amee nit ki immunisé na maanaam yàlla jox na ko arm jox na ko eh, loo xam ne ngàndaay loo xam ne mën na koo xeexee ngas chaque fois bu jàngoro doomu jàngoro ji duggatee yaramam euh, nit bu ngasee ba pare eh, dina ar euh, tasewaat ak euh, doomu jàngoro ngas bi waaye du ngas li tax ngasul mooy eh, arme boobu arme boobu ko yàlla jox bi mu njëkkee rencontré ngas mu ngi ci yaramam giirug dund saa yu doomu jàngoro bi duggatee Eh, arme boobu jóg attaqué ko eh, yàqal ko doomu jàngoro boobu lépp lu mu bëggoon defati ce qui que kooku dootul feebar ci principe boobu nag la vaccination départ ba nga gis ki ñuy wax eh, Louis Pasteur nga xam ne moom moo tax institut Pasteur bii di ñekki am ci la départ pour proposer ñuy ñekk nit ñi d'ailleurs ci loolu la ñekk yépp jógee Euh, dañuy euh, jël doomu jàngoro bi euh, dugal ko ci ay bàyyi ma léegi am na ci yoo xam ne sax mënees na ko defar ci ay yenn laboratoire yi mais lu ci bari ci doomu bàyyi ma lay jógee doomu bàyyi bàyyi ma boobu réagir defar arme yooyu léegi nag arme yooyu la ñuy synthétiser di ko di ko ñekki nit boo ko xoolee bu baax ñekk nit moom daanaka toppandoo loo xam ne yàlla da koo def ci yaramu nit la képp ku rencontré ab microbe yàlla def loolu sa yaram du ne yàcc di seetaan microbe bi ngay def ngay indi feebar di indi problème microbe bi bu njëkkee dugg mën naa yàq lu bari wala mu sonal nit ki waaye du tee nag yaram wi moom xool na ko bu baax a baax a baax xàmmee na ko sax ba defar ay ngànnaay ba bu Euh, dugg feebar bi duggatee mu jóg xeex ak moom léeg-léeg sax ci biir feebar bi la ngànnaay loolu yàlla jox nit ki xeex ak moom ñu koy wax anticorps yi ba gañee feebaru microbe boobu nit ki wér euh, ce qui fait que chaque fois doomu jàngoro bi duggati ngànnaay loolu moom mooy dal di jóg ko misaalee ku la ku la bett rek man la waaye nag bu la xase ba bett benn yoon ba nga xàmmee ko yaakaar naa boo fagaroo man bi mën naa deñ euh, noonu laa koy misaale bu la saay-saay deetee guddi yóbbu la muy yóbbu foog naa da nga fagaruwaat defaraat say bunt léeg-léeg sax nga wut ngànnaay denc wala nga dem boole kook police gendarmerie ba bu ñëwatee du def la mu mën a def loolu nag mooy base vaccination li muy simple yépp loolooy base vaccination anticorps euh, xeexukaayu doomu jàngoro yàlla moo koy def ci nit jàllee nag euh, ma répondre ci beneen question bi mooy est di jóg di voyager ji di vacciner wu jaar na yoon waaw jaar na yoon xam nga sax am na vaccin yoo xam ne si obligatoire boo jëlee fièvre jaune euh, organisation mondiale de la santé bi nga xam ne moo yor lépp luy wér gu yaram ci àdduna bi moom moo ne feebar bi mbonaayam tem ni mu gaawee eh, coono yi muy indi eh, képp kuy voyager da ngaa war a vacciner wu mooy boobu ñuy bind souvent ci carnet bi te réew yu bëri surtout Afrique boo vacciné wul du ñu nangu nga dugg sa réew wala boo egsee ñu lay vacciner donc di voyager vacciné wu jaar na yoon ci yenn feebar yi c'est obligatoire yeneen yi sax boo xoolee ngay boo boo waree yi gis ne réew mi feebar bi dafa bari te feebar bi am na vaccin ba pare nga def ko soog a dem moo gën a wóor. yokk ci ne bu dul sax voyager nit ku nekk dafa war a nekk à jour ci vaccination. xam nga euh, léegi mbirum médecine ni mu tëddee mooy bépp xale bu ganee àdduna muy góor muy jigéen quelque que soit condition sociale am famille am am walla mu bañ a am dafa am programme vaccination bu muy war a def. programme boobu nag bu ko defee jaarale ko yoon ba mu mat sëkk lu ci bari yàlla dina ko aar ci feebar yu bari parce que vaccin bu mu def rek dugal na ay ngànnaay ci biir yaramam defar fa anticorps yoo xam ne judduwaalewu ko léegi nag saa yu doomu jàngoro amee mu jóg loolu moo dindi sax ci àdduna bi yenn feebar yu bon walla mu wàññi leen xam nga poliomyélite mooy feebar boobu di lafañloo nit di ci yóbbu sax ay nit lu baree bari waaye bu uh, jàppee nit bu lafañee sax mën naa sant ndax léeg-léeg da koy yóbbu mais dina ko paralyser ñaari tànk yëpp boo gisee wàññeeku na ba daanaka amatul ci àdduna bi yenn réewu Afrique ñoo ko desee te li ko dindi uh, vaccination la vaccination poliomyélite. ku voyagé wul uh, dafa war a xool est-ce que moom. def na vaccination bi ci ni ko programme bi tëddee loolu nag ci gone yi moom amul sikki sàkka lu tëdd la te képp ku am gone da nga ko war a yóbbu ñu vacciner ko su dee mag it mag dafa war a am carnet de vaccination parce que boo demee ci centre yi vacciné euh, boo leen waxee ñoom dinañ xool euh, lan moo la dese bu dee am nga carnet boo amul carnet it am na jumtukaay yoo xam ne bu ñu ko defee dina am yenn vaccin yi Euh, ñu mën la koo defalaat yenn yi dañ lay tester gis ne yow kat vacciné woo woon waaye feebar bi dugg na la ba wér ba nga am say say jumtuwaay loolu bari na am na hépatite bi am na vaccin mais am na vérification tuberculose am na vaccin mais am na vérification ce qui fait que lu yàlla di def ñenn ñi demuñu woon vacciné wu wante euh, doomu jàngoro bi dugg na leen en tout cas am nañ affaire ak moom ba defar seen vaccin bopp. léegi nag bu ñu seetee mu négatif ñu xam ne yow kat vacciné woo waaye mësoo taseeg doomu jàngoro bi bu boobaa dañ naan la yow kat war nga def vaccination bi ndax immuniser guloo maanaam amagoo euh, arme yi amagoo jumtukaay yi tax bu la feebar bi duggee nga mën a xeex ak moom loolu tuberculose ci la rougeole bii ñuy wax dina jàpp mag ci la ak yeneen ak yeneen. yu bon yu mel ni coqueluche wala rubéole coqueluche ab feebaru saqat bu bon la nga jël rubéole nga jël euh, tuberculose bii ñuy wax am na vaccination muy BCG bi boo gisee mu wàññeeku ba yóbbootul lu bari nit ñi ci vaccination la jaar. léegi beneen bi mooy est-ce que euh, man ngaa def vaccin pour ñaari feebar walla ñett walla ñeent loolu am na euh, programme bi sax noonu la tëddee boo déggee bi ñuy wax DTC polio DTC kok yooyu. ay vaccin la yoo xam ne dañ leen di boole defandoo wàññiwul dara ñett ñeenti feebar euh, ñu boole yépp vacciné la ko benn yoon sa yaram def la mu war a def daal defar ngànnaay yi en même temps wàññiwul dara mais nag dafa am programme programme bi nag yëfu médecin la euh, jërul dem pharmacie rek jënd vaccin bi ne dama koy def noonu nga waxee ne est-ce que ay weer walla ay ay semaine daf leen war a xàjjale loolu am na lu am la donc topp programme bi moo gën a wóor mbokk mi laaj diggante xaari ul xuruuf ak naazimul xuruuf xaari ul xuruuf mooy ki jàng xaraf yi kon bu sëñ bi ñaanal ku jàng téere bi la ñaanal naazimul xuruuf nag boppam la cee ñaanal mooy ki taalif araf yi ki taalif téere bi wallahu taala alam euh, balaa ñuy jëlu vaccin di ko def dans le marché mënul ñàkk ñu essayer ko ci ay nit bu boobaa nag dafa fekk organisme yi yor mbirum wér-gu-yaram notamment l'OMS euh, dugg na ci ak euh, képp koo xam ne war nga cee dugg muy comité d'éthique yi waaw kon daal li ma ci mën a tënk mooy euh, vaccin moom yi nga xam ne fi mu ne médecine validé na ko muy programme bi am Sénégal am yeneen réew lu ñu seet bu baax la te li muy aar Euh, prouvé nañ ko am na ba pare donc du lu jar a ragal lu jar a def la euh, bépp bu ci bees it balaa ñu koy pikiir nit dafa am yoon wuñ koy seetee loolu foog naa docteur Bos euh, Mouhamed Diop Bos wax na ci lu lu bare bare bare léegi nit mën naa ñàkku ba pare def feebar loolu loolu it am na mais li koy indi souvent mooy ñàkk woo jàpput na mu war a jàppe xam nga nit euh, moom organisme dafa compliqué mais aussi vaccination it euh, dafa am yoon parce que vaccin boo gisee boo ko jëndee lu ci bari dañ koy dugal ci mbuusu glace jox la boo ko bàyyee ci sa oto ci tàngoor wi lu mat ay minute ay simili euh, waxuma laa nag ay waxtu walla nga yóbbu ko fanaanal ko nii teg ko ci benn taabal wala leneen xëy vacciné wu ci daanaka vacciné wu ndox rek nga pikiroo Euh, vaccin li ci nekk euh, dafa gaaw a yàqu euh, ce qui fait que bu yàqoo ñu ñàkk la ko it pikiir nañ la waaye ñàkkuñu la loolu mooy différence bi ce qui fait que erreur boobu bu amee ci nit ki ndax xamul woon wala boog li ñuy wax chaîne de froid bi war a conserver vaccin bi yàqu ñuy wax rupture de la chaîne de de froid nit ki ñàkkam baaxul léegi nag mën na yaakaar ne ñàkku na bu boobaa malheureusement bu feebar bi ñëwee eh, mën na koo jàpp loolu laa bëggoon indi comme ay éléments de réponse pour leeral euh, lan mooy vaccination ak euh, ci wan yoon lañ ko teg ak njëriñam jërëjëf. Euh, salaamaaleykum wa rahmatullah waa kon sëñ Xaban pour jeexal rek mbirum vaccination yooyu ni ma koy misaale daal vaccination moom médecin yi. Eh, ak képp ku ko defar da nga da ngay roy rek eh, loo xam ne suñu borom def na ko ci yaram ngànnaay yooyu nga xam ne moom la ñoo la ñu yàlla jox ñu koy wax antikoor yi ñu war a aar yaram wi giirug dund di attaquer antigènes yi antigènes yi mooy microbe yi microbe yi antigène la ñuy ëndaale eh, anticorps yi xeex ak ñoom Euh, loolu mooy principe bu vaccination donc euh, li ñuy ñaan nit ñi ñun mooy ñu bañ a ragal vaccination euh, daanaka lu lu naturel la yàlla moo def mbaax moomu ci yaram vaccin bi du def lu dul jëfandikoo ko mooy activer anticorps yooyu parce que anticorps yooyu su yàlla moo def suñu yaram man koo defar waaye nag bu la microbe bi duggul wala antigène bi dugg la euh, arme yooyu maanaam gànnaay yi duñu mën a duñu mën a taxaw temm euh, seen taxaw temm nag ñàkk moo koy indi looloo tax tétanos jóge fi bareetu fi moo tax euh, feebaru sëqat wàññeeku moo tax rougeole xureet jóge fi moo tax poliomyélite paralysie wàññeeku moo tax diphtérie jóge fi rubéole jóge fi feebar yu bon yooyu yëpp euh, dañ koy nettali rek léegi waaye ñu bari ci ndaw ñi de ba juróom fukki at xamuñu ko loolu nag vaccination ko fi jële euh, waaw kay maa ngi leen di sant yéen ñëpp di di leen déglu rek. Euh, waaw salaamaaleykum sëñ Xaban xam nga bo vaccination boobu ñuy wax TAB vaccination. Euh, contre fièvre typhoïde la ak euh, paratyphie ñu koy wax A et B loolu moo indi TAB bi fièvre typhoïde nag euh, benn feebar la boo xam ni moom la ñuy wax aussi salmonellose am na nag ci Sénégal daanaka fépp la am pays développé yi aussi am na fa li muy joxe mooy yaram mu tàng biir buy metti mujj di mujj di daw Euh, boo jëlee garab yi war ay antibiotique la moom bii yoon euh, bu la dalee nga jël antibiotique yi da ngay daal di tane bu soobee yàlla euh, léeg-léeg nag bu boo jëlul garab yi mën na indi ay complications parce que sax am na am na sax ñu ciy faatu te sibbiru lay nurool dafa jege sibbiru trop sax ba nga xam ne suñu médecin wu Sénégal yi xam nañ ne bu la. signes yooyu amee muy bopp buy métteeg biir bi di xaw a daw yaram wi tàng eh, ñu def feebaru sibbiru tanewul lu ci bëri dañuy xalaat fièvre typhoïde boobu fièvre typhoïde boobu nag moom la vaccination TAB di fànq eh, TAB nag eh, ñu bëri dañoo foog ne boo ko ñakkoo rek aar na la ci lépp déedéet du loolu loolu moom ñëpp a ko xam ñëpp a ko xalaat plutôt ci suñu gox boobu surtout Euh, ñun bi ñu gën a nekk ndaw nekk njaareem ñëpp doon wax dañoo bëgg a def TAB ndax boo ko defee da ngay am kàttan naan waa ñu nekk ci mbirum arme bi dañ koy def euh, waaye nag euh, feebar boobu da lay faj fièvre typhoïde aarul ci yeneen moom lay aar plutôt feebar boobu lay aar du ko faj da koy aar aarul ci yeneen feebar yi nag mais ci programme bi la bokk Euh, ku ko def it mën na laa mën na la aar ci fièvre typhoïde AEB euh, kenn defatu ko systématiquement noonu ko nit ñi di xalaatee eh, ci yenn circonstances yi eh, bu bu amee ñàkk war ci ak ñenn ñi nga xam ne dañoo néew doole fragile médecin mën na leen ko proposer